li nga xam ne nag laay indi sumay bokk fii ci Sokone eh, de suñ koy xeb lool lool lool waaye dafa nekk ne dañu màndargaal suñu taxawaay dañu ñu jógee ba Dakar ñëw bala wóolu gouvernement bi nga xam ne ñu ngi koy xaar balaa mu yegg si seen mbokk yoo xam ne seen liggéey dafa dakk ñoom yaakaar ne ceeb bi la nekk suñ gannaaw ñu koy xayma ci lu mot fukki tonne ak lu topp ak kees yi nga xam ne ñoo nekk suñu gannaaw ceeb bi pour ñi nga xam ne seen gannaaw jotiwu seen seen loxo jotiwu seen gannaaw ñu jàppandegum ci ba nga xamee la gën a takku nguur gi dina ko def bu soobee yàlla yuntu fa carton yi nag mooy carton yi def saabu yi aliment gel hydroalcoolique yi mooy li nga xam ne cet daal la dugg la jublu cet rek raasu fóot yére yi moytu ñu yàlla mayloo masque ñu takk masque waaye dafa am loo xam ne dañ ko seetlu it masque yi naam ci usines yi lañ koy defaree waaye ñëpp jotewuñ ci moo tax ni xale yi nga xam ne dañ nekk tailleur ci dëkk bi ñu jënd ay tissu wax def ci lu bari loo xam ne dañ ko ci ñaw bu soobee yàlla yonent ba tailleur yi fi nekk it am ci lu ñu jàpp ci loolu ñu def mbir mi jox ko waa dëkk bi di ñëw rek parce que dégg naa ci borom xam-xam yi nga xam nee nañ boo defee masque tissu mooy eh, lii ñuy sol tissu yi su wax bi boo ñibbisee sa kër da nga koy jox xooj ko ci eau de boo xoojee génnee ko weer ko balaa nga koy solaat nga paase ko ak fer bu tàng boo ci amee ñett ba ci ñeent ci bés bi dégg naa ñu ne réew mu mel ni Hong Kong juróom-ñaari millions ngi nit ñoo fa dëkk benn ville la juróom benn téeméeri feebar rek nit rek a fa feebar ñeent ñoo ci faatu borom xam-xam yu bari nag ne masque yi lu baax la ci loolu lu mucc ayib la loo xam ne le mën nañu ci musal loolu moo tax fii ci Sokone dañuy def li ñuy wax opération mask tayer yaa fi man nañ ko bind maa ngi janoo ko suma benn jarbaat bu ñu wax Babacar Senghor ak ay moromam ñoom gune yi nga xam ne tailleur lañ bu soobee yàlla yontu ba ñu ngi ci jublu opération boobu moo taxit it opération pour siwal ko moo tax ñi taxaw suma gannaaw yépp ñu ngi def masque yi ñoom nag ñoo représenté dix quartiers yi nga xam ne ñu ngi ci fii ci Sokone fii ci Sokone Sokone moom dañ ko xaajale dix quartiers quartier bu ci nekk daanaka da nga am tonne ceeb da nga am ay carton mu yóbbu ko ci loolu lañ doon liggéey tey su ba yàlla yonent ba incha